ci ci an tariqi sami wal wax yi ci nga koy dégg waaye xel du ca du ca du ca du ca liggéey ak yi nga xam ne nii yomal àjjana ak sawara am na da koy gëm waaye dañ la koy jàngal an tariqil wax yi du jàngi da nga koy da nga koy imaginer ci wàllu xel nii rek pour jaaree pour gëm ko waaye loola dañ la koy jàngal ci wàllu alquran moo la koy jàngal ak sunna wa naaru wal jannatu xaqan xuliqa daaray jasain lin naimi wa shaqa boo xoolee nag sama iyaat y am na ñaari keno yoo xam ne am na solo lool ci seen biir bi ci njëkk mooy jàng ko xam ko dana la jural nga mën koo saxal nga mën koo dëggal waaye muqaabil ba mooy soo ko jàngul xamoo ko mën nga koo weddi mën ngaa taxaw di ko di ko di ko di ko di di di di wax ci lu safaanoo ak la sax waaye itam nag boo xoolee euh, da ko da saxal ay maanaam boo ko jàngee xam ko da mën a saxal ay maanaam waaye nag soo ko soo ko jagul xamoo ko mën ngay sukkandiku ci sa kaw xel lu la sa xel jox rek nga jàpp ne lool la te lu fekkee lu la sa xel jox nga jàpp ne loola la xel dana la yóbbu foo xam ne nii pour nga génn ko du yomb boo gisee falasife euh, yi li ñu tuddee philosophie li leen tarfatiloo mooy dañoo teg lépp ci kaw xel te loolu la muy jur mooy boo ko tegee ci kaw xel da ngay egg foo xam ne da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay ngay wàcc aw yoon moo tax du cagi ne boo xoolee Sëriñ Tuubaa li muy jàngale ci ishaaraat yi mu ñëw li ñu wax ne fa fi ala kulli mumkinin wa tarka ajis fi xaq yi ajis ku fiita ifka ku fiita ishaaraat na yoo xam boo sukkandikoo ci wàllu tafasuf wala comme aqida artisalia di am yooyu wax na lu baax moo lu baax ak lu baaxul bu dajee la baax la moo war yàlla lu gën ak lëgg la gën ak lëgg la ko gën a maanaam la baax la gën a baax bu dajee la gën a baax moo war yàlla li nga war a gëm mooy lu yàlla def rek a baax su ko defee nag boo ndax yu yooyu daf lay dugal ci loo xam ne da indi andi la jëfandikoo wàllu xel kon li ma bëgg a fu mooy mbooleem sam iyaat yu ñu ngi koy jaare ci kaw mooy yi nga xam ne ñu koy xamee jaare ci wax yu ak sàmm ñu ñu jàngal la ko nga xam ko waaye du caagi ne xel daf cay liggéey pour nga xam ko su ko defee kon loolu mënees naa wax ne mooy mawduaat yi nga xam ne ci la ilmul aqida di wax am na ci yeneen yu ciy duggaale yoo xam ne boo xam ne ko ci dugal bokk na ca alqadar dogal wàllu dogal dafa bari ci coow dafa bari coow lool sax man li aju ci wàllu qadar jot mat na sëkk ab jotaay ndax li ci ñëw ci ay wax dafa bari lool ci wàllu dogal ak euh, ñi ñëw fii doomi aadama nit ñi ci boppam ñooy jëf yoonu yàlla nekku ci li ñu jëf tarfati ak yoon ñi ni yàllay jëf yoonu doomi aadama ci li muy jëf tarfati ak yoon muy coow yu ne cobbay yoo xam ne nii détaillé ko laaj na ay jotaay jotaay kon xadar dañ koy dugal ci wàllu aqida ci mawduatu ilmul ci lañ koy boole waaye bokk na ci li ñu duma usulul ahkaamil qat'iyya dañ ko ciy dugal at yi nga xam ne ahkaam qat'iyya la dañ dañ dañ ñëw pour détaillé ko dañ bañ mu jël jotaay bi ak usulul diin wal i'tiqaad yooyu yëpp day dugg ci même al axbaar yi dañ koy dugal ci biir eh, ilmul ilmul ilmul aqida buñ bu ñu weesoo loolu danañ dugg ci ruduud yi nga xam ne dañ ci radd ahlul ahwa ñaar ruduud yu dañ ko dugal ci ci ci wàll gi ahlul ahwa wa ahlul bida ak mbooleem kuréel yi nga xam ne nii munxarif lañu ñaare boo demee ci kutub yi wax ci wàllu aqida ci mawduaat yi dañ ci tanaawal ay buntu yu ajjul radd ala ahlil ahwa ala ahlil bida ala saairil milal wa nihal ad dalla ñoom si loolu ba tey dañ dañ ko leeral ci buntu buntu bu buñ koy leeral ak seen taxawaay dañ dañ ci dugg muy fànn goo xam ne nag fànn la goo xam ne ñii ci taalif ba bari na ay borom yi xam-xam yu bari sama ne sama ne taalif nañ ci waaye lañ ca mën a wax rek mooy dañ tudd ñenn ñoo xam ne seeni taalif dafa am solo lool ci fànn gi su fekkee yàlla dogal na nga am ko xayrun boo ko amul nga gëstu ca ba bu ñuy ñëw ci mujj sëñ bi ci ci li ñuy leeral ci sëñ bi danañ leeral lenn ci loo xam ne moom it yenn ci ay mu àllafaat yoo xam sëñ bi tëlif nag ci bokk na ci giñ ci njëkk a wax te mooy ñaare sax muy sukkandikaayu wàllu wàllu suñu kilifa yi moom ci moom la ñu sukkandikoo ci wàllu ci wàllu aqida wàllu pas-pas mooy abul xasanil ashari tëlif nag bokk na ci ay mu àllafaatam mu àllafaat moom tëlif na ay tëlif yu bëree bëri ci wàllu googu waaye bokk na ca liñ ciy leeral maqalatul islamiyin waxtilaaful musallin loola wax na ko ci fi raddi ala ahli zayqi wal bidaa taalif na ko ci wal ibaana boobu téere bu siiwul al ibaana fi usuli diyaana taalif na ko waaye nattangoom ba ki ñu tudde abu mansour al mataridi kooku yi ba taalif na ci te am na téere bu ñuy wax kitaabu tawhid taalif na ko abu bakr al baqlaani taalif na ci ba tey mooy tamhidul awail wa talxiisu dalail moom it bu taalif na ko ci wàllu aqida téere bu am solo yi ñu yi ñu sélectionné nii téere yu am solo wàllu ci wàllu aqida abul maali al juwayni taalif na ci asham shamil ci usuli diin mu tali ci it eh, al irshaad lamoon adilla loolu bokk na ci li nga xam ne talif na ko ci abu ishaaq ashirazi talif na ci al ishaara ila madhabi ahli alxaq waaye abu xamidin al gasali talif na ci al iqtisaad fi al itiqaad al munqid min ad-dalaal ak tahafutul falasifa nga xam ne boobu téere la boo xam ne def ci eh, radd falas donte am na keneen ku ko radd eh, tudd tudd téere ba tahafutut tahafut bokk na ci Eh, ñi ci taalif ba tey ma Abdul Qahir al Baghdadi mu usulu diin la ci taalif taalif na ci it al farq bayna al firaq waaye bokk na ci ñi taalif Abu Fatha Shahrastani te taalif na ci al milal wa nihal waaye Faxru diin ar Razi tasiisu taqdis muy téere bu am solo boo xam ne nii. Eh, moom ku ko amati nga gëstu ko am na ci sololoo lool kon loolu manees na ko wax ak yeneen yi bari bari ci ay taalif yoo xam ni ñëw na ci wàllu aqida c'est eh, man muy muy muy wàllu pas-pas muy ay mu allafaat yoo xam ne borom xam-xam yi def nañ ko ci fànn gi mu des nag bu ñu waxee loolu ci wàllu mabadi yi ak loolu ci wàllu eh, mawduaat yi nga xam ne ci la fànn gi doon wax ñu war a dugg nag ci mujjantalu jotaay bi jëmmi sëriñ bi nga xam ne nii moom lañ jël ab téeréem euh, benn nopp bu mujj ba ñuy ba ñuy ba mottali ci moom muy Mawahibul Quddus Cheikhul Khadim radiyallahu anhu téeréem bii di Mawahibul Quddus euh, nga xam ne mooy fànn muy bi ñu fas yéene tàmbali ci jotaay bi di dëgma si ñu wax tuuti ci wàllu euh, moom ay mu àllaf giseenam ci wàllu ci wàllu aqida giseenam ci wàllu aqida mooy aqidatu ahli sunna wal moom mu lay woote jëme ci mbooleem ñi aju ci moom ñëpp lam leen di woo jëme mooy pas-pasu ahli sunna wal jamaa am na fu muy waxee ne fal yaalama kullu dakiyin wa wal yaalama kullu dakiyin wa balid an alladi yuxaalifu alxaqa tarid walxaqu badu labdi bitawxidi walfiqhi an tasawufin mujidi muntahijan madhab ahli sunna ma aljamaat wa tilkal jumla pour xal ci pour gën cee xuus nag pour gën cee xuus dëggantaan eh, day day laaj ñu dugg ci biir fànn ak incha allah ci wàllu pas-pasam waaye danañ la andil lenn ci loo xam ne ay mu allafaatam loo xam ne taalif na ko ci wàllu aqida ndax moom wàllu bu daf ci bind na ci ay am na am na am na am na ci ay mu allafaat yoo xam ne nañ ko ci ay ay ay leeral yoo xam borom xam joxe nañ ko ci wàllu pas-pasam ak giseenam ci ni mu tënk ko ci wàllu ahlu sunna wal jamaa ba leeral ci ay détails yu gudd gudd yooyu dañ ko andi incha allah ci jotaay bii di bii di dëgmal si. waaye mu àllafaatam ci wàllu aqida bokk na ca mawahibul quddus muy téere bii nga xam ne moom lañ fas yéene jàngale fii nazmi nasri cheikhina sanusi loola ci bokk na ci ay mu àllafaatam ci fànn nag tawhid bokk na ci ay mu àllafaatam ci fànn nag tawhid nazmun li kitaabi aqidati suxra suxra suxra loolu taalif na ko ba tey muy aqida suxra suxra loolu sëñ bi e, taalif na ci ab téere boo xam ne ci wàllu aqida lay jàngale waaye bokk na ci ay mu àllafaatam ci wàllu aqida faydul ganiyil mugni fii ma ani suluki yoon yoon yi kon loolu bokk na ci li nga xam ne sëñ bi taalif na ko ci wàllu aqida waaye bokk na ci bi nga xam ne taalif na ko ci wàllu aqida mooy al xidmatul mutahara mu àllaf boo xam ne sëñ bi daf ko taalif ci wàllu aqida bokk na ci li nga xam ne taalif na ko ci wàllu aqida fatxul fattahil alimil xabir fi bassi ilmin yu addi ila al ajril kabir loolu ba tey mu àllaf la boo xam ne sëñ bi def ko taalif ci wàllu aqida fatxul fattaxil alimil xabir fi bassi ilmin yu addi ila al ajril kabir loolu it ci mu àllafaatam la bokk ci wàllu aqida jaalibatu saada bu mu taalif la ci wàllu aqida jam'ul muqaddamat jam jam'ul maq afan jam'ul maqamat allati farra ilayha al qawmu fi sharhi qasidati laa taaxuduhu sinatun wala nawm laa taaxuduhu sinatun wala nawm loolu ba tey mu àllaf la boo xam ne sëñ bi def ko taalif ci wàllu aqida faydul alimi alxabir alwahid fii ma laa yastagni anhu min a laa yustagna laa yustagna anhu min altawhid loolu ba tey ci eh, maam fafaan nag sëñ mu àllaf yi sëñ bi taalif ci wàllu aqida ci la bokk jësbatu sigaar an laibin li xidmati almuxtaar ba tey loolu ci yi bi taalif ci wàllu aqida muy téere boo xam ne sax moom xaj na am na ñu ngi koy jàng ci wàllu ci ci jotaayu ci jotaayu xam-xam yi waaye bokk na ci it al qism al awal boo demee ci min ci ñaari mansub ñaari ñaari muallaf yi nga xam siiw nañu koy jàng ci téere ci daare majalis yi mooy tazawudu sigaar ila tibaayil maliki tazawudu subbaan ila tibaayil maliki dayyaan boobu téere la am na ci pàcc boo xam ne dafa am ci wàllu aqida waaye boo demee tazawudu sigaar ila jinaanillaahi dil anharit téere la boo xam ne am na ci pàcc boo xam ne dafa am ci wàllu aqida boo xoolee yu yëpp ñu ngi koy jàng ci wàllu aqida waaye sëriñ bi aqida ni mu ko ñore woon yëmutoon rek ci ay muallafaat waaye daf doon daf pas-pasam mi ngi ko doon wane saa su ne di wane ne pas-pas boobu ñaare kum daan woo di la xëcc daf la daan jëmee ci ci wàllu googu ci nga fas ko moo bind def na ko ci ay tomb def na ko ci ay wasaaya def na ko ci ay bind nga xam ne fànn ak tawxiid ci boppam dafa ko ñor di wane ne wal xaqu bat ul abdi bi tawxiid maanaam wane ne kon jaam bi képp ku wuteeg dëgg des na ko dàq te su ko nag waaye lii dëgg dëgg dëgg mooy jaam bi bu jógee ne junet na fexe ba jàng la wér ci moom ci wàllu aqida kon pas-pas dafa yëtteel sëñ bi taalif na ci ay téere waaye daf ci ay muallafa yu bari yëmul ci muallafa rek yenn ci xam ne ay xitaa la waaye ay maktubaat wala ay abyaat yoo xam ne waarida an dafay tegtale dund gi mu dund dund wàllu aqida ak doy la yàlla di woote ci aqidatu ahli sunna wal jamaa baatu ahli sunna wal jamaa moom day rot ci ay waxam lu bare bari wane ne mooy junna ci képp ku bëgg a mucc képp ko bëgg a mucc day jàpp ci pas-pasu ahlu na wal jamaa ndax loola mooy yoon wax bu ci nit jaaree mën a mucc ëllëg mooy yoon wax bu ci nit jaaree mën a mucc ci bépp ndëgg sarax sëñ bi boo xoolee li mu doon taalif lépp ñam ko doon taalifel xaj na moom daf doon taalif ngir gindi mboolem mbokki jur yëpp teg leen ci am yoon ndax boo xoolee bu bu bu buy wax du du istihdaaf man du yëm rek ci ñi nga xam ne ñooy ak njabootam waaye buy waxante dañuy waxante mboolem jullit yëpp kon di wane ne kon li mu koy lim li mu tërif nun daf koy tërif tërifal mboolem jullit yëpp moo tax ci wàllu aqida bu bu ciy jàngale daf cee jo daf cee jël la gën a wér gën cee sax ngir saxal ko ci xolub jullit ak woo ko jëne ko ci boo xoolee yenn ci ay bayitam sax nag daf dafay woote jëme ci loolu ci wàllu aqida moo xam ne kon aqida daf koo ñor bokk na ci yi nga xam daf koy wane di wane ne ci wàllu wéetal la gën ci lu jaam bi di jàpp di ko fas ci xolam mooy gëm ne yàlla rek a yàlla la gën ci lu jaam di fas ci xolam mooy gëm ne yàlla rek yàlla te gëm ne yàlla rek a yàlla daf lay yóbbu ci sax boo gisee koo xam ne ne la fas danga koy jàppe mbokk te gépp noonu gu jaar gu nar a jaar sa diggante da koy dàq wala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allahu day dem bay wax ne jaam bi fu mu toll na jàpp ne ñaari baat yi muy ñaari baat la ilaha illallah muhammadu rasulullah mooy gën ci lu jàmm bi di saxoo sikkar ci aw làmmiñam di bax di wax baatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah ndax loolu dafay saxal aqida pas-pas bu wér ci xolub ci xolub ci xolub jullit bi kon ci ay ay maktubaatam sax dafay même sax ci wàllu ñaan ñaan dane booy ñaan ñaanal yàlla booy dimbali ko dimbali ko yàlla te yooyu yëpp dafay laal aqida wala pas-pas pour war ne kon amul benn domaine boo xam ne ndax boo demee ci wàllu ci wàllu dimbali ko ma nga naan la booy dimbali ko dimbali ko yàlla keneen koo dimbali ko ku dul yàlla kenn du la dimbali wa kon bi rabbika al muini dastiaan wa in bi gayrihi istaanta la tuan waaye dem na bay wax ne yépp nag ku jàpp ne même li xew ci jamono ñëpp di ko daw mu jàpp ne ki mu ku mu dal dafa la war a dal ku mu wërta dal du la dal donte da nga jaar ca sabab ba kon wane na ne lor ak njariñ ci loxol yàlla la nekk loxol nekkul ci loxol nit ku ñuul nekkul ci loxol nit ku weex an naf wa durru min arrahmani laysa min albidaani wa sudaani yëmul fu dem na bay wax ne sax nag képp ku jàpp ne lor juuju wala njariñ juuju nekk na ci loxol kenn ku dul yàlla na nga yóbbe boppam coono adduna ak alaxira man zanna gayra allahi yugni aw yadur fa daaka fi daarini doo kaddin wa dur doon na dem ba ba sax nag ci wàllu ni mu doon ni mu doon jubbantee ñi mu doon yar dafa leen doon yar ci wàllu aqida dafa leen doon yar ci wàllu pas-pas ndax yenn ci xissa yi ñu faral di nettali wax nañu ne am na ku ko mas a indil ay weer nee nañu ba ko ko jox ngir ngir ngir wàll rek pas-pas sëñ bi ak wàllu tawhid ak ni mu ko ñore woon ne nga xam ne kon waaye da ko indil ay weer ngir bëgg mu koy takk nee nañu ci xissa bi dégg bi mu ñëwee mu jox ko sëñ bi ngir mu war koo takk sëñ bi xamul nu mu koy takkee mu ne ko da def nii mu topp sa bakkan ba topp sa bakkan baak sànni weer yi ñoo ànd pour jàpp ne ne moom yàlla lañ war a topp waaye bakkan wi su ko topp te loola kat mooy xam ne kuy takki weer day jaar nii topp bakkan yi rek loolu la ñu doon wax waaye tudd gi mu ci tudd topp bakkan moo tax mu sànni weer yi ak ka doon waxam ne gina a waxam ne ginnaaw bu yàlla yooyu yónent bi yónent bi bëggoon ci ci yow àndal ba mu tàmbalee ginnaaw bu yàlla yooyu yónent bi ma fi fekk ndax moom fa yàlla nekk yónent bi nekk dafa fa la nekk maanaam dañ kon sëriñ bi ci wàllu aqida ci wàllu njàngaleem ci wàllu pas-pas ci wàllu woote ci wàllu orienté ci wàllu jubbanti léppam daf ko doon xëcc jëm kon mbokk yi dafay mel ni loolu lañ waajaloon tey ci jotaay bi euh, bu ko defee incha allah jotaay bii di dëgmal nag ci la ñuy tàmbali ci téere bi ndax ñetti muqaddima bi ñetti lay tay la woon yoo dafa aju woon ci wàllu téere bii di Mawahibul Quddus euh, ñu mënuñu ko ñàkk tudd la mooy kan ak yan pas-pas la yoroon waaye téere bii pas-pas la yoroon waaye itam fànn gin mooy lan ak yan moo ci aju loolu moo nekkoon jotaay bi jàll incha allah jotaay bii di ñëw nag ñu dugg ci gën a leeral pas-pasu sëñ bi ci wàllu mbindam jël nag téere bi incha allah dugg ci mooy bul xuddoos yàlla na suñu borom may ñu dégg aku topp te liñ fi doon waxtaan yàlla nekku yiw bu nekk yàlla na ko suñu borom nangu su ko nangu yàlla nañu ko laqal fi àqigul lu nekk jafe ci borom bi subhanahu wa taala mooy borom kàttan ko soobee jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Abdul Ahad ci waxtaan bu am solo walla ci bind bu am solo boobu yi nga nu defal e, te mu aju ci wàllum aqida wàllum pas-pas tawxiid e, te leer lool macha allah te te it matale lool wax dëgg yàlla. E, jàpp nañ ne mboolem nun ñi ko doon teewlu di ko topp am nañ ci lu doy sëkk ab yóbbal. boo xam ne mën nañ cee dollee ko mën nañ cee eh, jariñu eh, xanaa ka bil asaf gàttaay gi rek ko waral waaye ndegam lool yi nga waajaloon jombut te am na bind yu nekk ci suñu kanam incha allahu taala noo ngi am yaakaar que ne danañ ci gën a jariñu bu baax a baax ñaan suñu borom mu defal la ci tawfiq bu ko defee ni ko waxee rek eh, tënk na ko lool wax dëgg yàlla ci fa nga xamee ne fa la yemoon ci jotaay bee weesu mooy doon na wax ci Euh, almabadi al ashra yi nga xamee ne bépp xam-xam bu nekk mënu koo ñàkk mu doon wax ci mabaadi yooyu ilmul aqida euh, ba jotoon cee tudd juróom-benn ca sunu jataay bee weesu euh, jotoon a tudd xadd ba waxoon ca wax dëgg yàlla lu amaam solo yaataloon ca mooy xamle ko xam ne ilmul aqida ci boppam wala ilmu tawxid ñëwoon ci mawduu ba maanaam ci lan lay wax moom it ñëwoon na ci ku toppoon suñu jotaay weesu e, e, dana ci am lu wax dëgg yàlla leer nañ ni ko noonu samra bi e, meññeent bi nga xamee ne ilmu tawhid da koy joxe wala ilmu aqida ni ko noonu nisba bi ak fadlu bi ak waadi'uhu yooyu yëpp jotoon na cee ñëw ci suñu jataay bi jàll tey mu ñëwoon nag doon ko eggale ci almawaadi woon ashra yooyu noonu yi ñëw ci ismu beeg istimdaad beeg fànn yooyu yëpp jot na cee ñëw bu ñëwee ci eh, ismu bi jot na cee wax ay tur yu wuutee waaye tur yi li wuutee yëpp rek ci delluwaay benn lay doon ilmu tawxid ilmul kalaam wax na ñoom sa nañ koo ber ilmu usuli diin al fiqhul eh, ba ci lenn ci falaasifa ak nañ koy tuddee ak nañ koy eh, jàppe bi mu ci ñëwee it istimdaadoo moom nee na alquranul karim mooy istimdaad bi ak sunna su yonent bi sallallahu alayhi wa loolu it suñu borom xam-xam yi eh, mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo jiitu woon tàmbalee ko ca saxaaba yi waroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ñoom it leeralal ñu ko yaatal ñu ko faram ñu ko eh, ñi nga xam ne ñoo topp seen ginnaaw di taabiuuna yi ak taabiu taabiina yi bi ñëwee it ñoom it détaillé ñu ko eh, defal ñu ko ay ay muallafaat tadwin ko ba mu des suñu jamonoy tey jii ba suñu góor gu mag yi di seexul xadim moom it def ci lu rëy rëy luñ ci def ci ci xaqida moom sëriñ bi da nga naan daanaka da nga naan daanaka sëriñ bi daanaka mën nga ne eh, lim bind ci xaqida bind ko sax ci la neen ndax bind na ci ay taalif yu bëree bëree bëree eh, jot na ci lim waahibul qudus bi nga xamee ne moom lañ doon moom la doon eh, tàmbalim ay muxaddimaatam ni ngi noonu xaqida ak imaam Sanusi bi nga xamee ne wala mooy mansuma bi nga xam ne way na ko soxlaa soxlaa soxlaa ni ngi noonu faydul xani muxni fi nasmi ma anis suluki yox nii te suñu mbokk suñ sëriñ Seexuna eh, Mbàkke Murtada Fadli saraa ko tuddee ko almuxni fi fi maani faydil xani almuxni niki noonu alxidmatul mutahara eh, fathul alim alxabir fathul alim alxabir eh, fi basti ilmin yuwaddi ila al ajri alkabir jalibatu saada jamul maqamat faydul alim alxabir alwahid fi ma la yastaxni anhu min altawxid ak muqaddima tasawud sixaar bu njëkk ba wala xaajib tasawud sixaar bu njëkk ba alqismu alawal min kitaabi tasawud sixaar ni ko noonu alxismul awal min kitaabi tasawudi subaan ni ko noonu alxismul awal min jasbati sixaar ak yeneen yoo xam ne bëri na lool lool lool ba sax ci xasaayid yi nga xamee ne euh, da suñu da ko daal bind day fees dell day fees dell ak tawhid moom daanaka dawut dawut yitoowu doon dara lu ñetti bunt yi nii muy imaan islaam ihsaan nga mën ko wax ne tawhid fiq ak tasawuf loolu ci la waxoon ne adoo ilal ilaahi bi tawhidi wa ma raaytu anhu min mahidi lillahi ad'u bi tafaquhi bila maylin li xayrihi wa kulli qabila lillahi ad'u bi tasawufi maa makaarimi l axlaaqi uh, fa huwa samia uh, mooy ñett yooyu rek la daan la daan la daan woote sëñ di juñ moom li ñu gisoon ne mooy mooy mooy li war mooy awalawiya mooy tàmbaleeg uh, bi ci ci mooy li nga xamee ne mooy mbubb mi nga xamee ne boo ko solee moo lay mën a moo lay mën a moo lay mën a euh, yiir ba tax nga mën a dox ci yeneen soxla yi te yeneen soxla yi mooy fiq ak tasawuf kon bu ko defee sëñ Abdoulaye waxtaan yu matalan lool bu ñëwee it ci muallafaat yi nga xamee ne boroom xam-xam yi tudd nañ ko ndax loolu lu mata lu mata sonne la lu mata xam la surtout nag ci euh, borom téere bi nga xam ne sëriñ bi ci la doon euh, wala xaqida bi nga xam ne ci la sëriñ bi doon waxee muy xaqidatul imam abul hasan al ashari Eh, moom it daa mat a xam bu baax xam it mu àllafaat yi nga xamee ne taalif nañ ko ci di ko gëstu ndax suñ gox bii ñu nekk eh, gone yi jàng wala ñi nga xam ne dañuy jàng dëgg la na am ñu ngi leen di jàngal wàllum xaqiida ak yu mel noonu waaye xaqatul imaam abil ashar al ashari yi dese nañ koo xam bu baax a baax a baax a kon dana yàlla bu ñu waxee wàllum tawxiid téere yi ca làmbo yi ñu beralaal leen jaanib ne yii nii nag moo jëm ci wàllum xaqiida bi nga xamee ne abul hasan al ashari moom ci la moom ci la ci moom la jàngale Serigne tubaa ci la nekkoon Alaaji Malik ci la nekkoon keneen ak keneen suñ mag réew mi ci la nekkoon ngir ñu gën ko gën koo mën a xam euh, loolu day am solo bu baax a baax a baax tudd na ci téere yooyu ashamin fi usuli din al ishara ala masail xaqi al munqis min al dalal bi imam xasadi kitaabu tawhid euh, al farqu bayna ahli firaq al melalu wa nexal euh, ni ko noon tahafatul falasifa yooyu yëpp tudd na ko ci téere yi nga xam ne téeram euh, ci wàllu xilmul kalaam la jëm ak ci wàllu wàllu tawxiid matala euh, loolu wax dëgg yàlla def nañ ne euh, am na yóbbal bu mat sëkk la mën nañ ne man na sax ndogu ñu ngi lay jaajëful baax sëriñ Abdou Lahad mu mel na ni yenn laaj rotagul waaye laaj bu rote li fekk ñu yëkkati jataay bi danañ ko ko jot li bu ko defee it nag ni ma ko waxee sànq ci ndortali Eh, tey munaasaba daa munaasaba lool wala daa dëppoo ak lool xew-xew boobu yi nga xamee ne moo xewoon ci fukk ak juróom-ñaar ci weeru badar mën nañ na sax tey jii ci adduna bi am na ñoo xam ne mooy seen fukk ak juróom-ñaareel mën nañ ñoom ñoom lañ jàpp seen badar waaye fii ci Sénégal nga xam ne suba mooy suñu fukk ak juróom-ñaareel di xew-xew ba dana yell lool it ñu dugg ci lu ko ci wax dëgg yàlla ndax lu ñu war a man a jàngal la ndax damay wax ne fu ñu waxtaanee xasootu ba mu egg waras na caa mën a génnewaat duróosun wa lu mel ni tawakkul ga xamee ne amoon nañ ko ci seen borom doylu gañ ko amoon wóolu gañ wóolu seen borom ndax lu met fukki nit ak ñett trois cent treize ñetti téeméer fukk ak ñett wala ñetti téeméer fukk ak ñeent ba lañ ci wax jàmmaaloog junniy nit loolu du lu ndaw loolu pas-pas dong moo ko mën a moo ko mën a dékku moo ko mën a euh, taxaw jaamaarloo ak loole noonu kon bu ko defee sëñ laat da da indi indil ab buntu rek wala euh, ay wax ay simili yu néew ci xew-xew boobu noonu di badar bu ko defee euh, ñu door a yëkkati jotaay bi incha allahu taala bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala nabiyina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mbokki asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu uh, ñi ngi ndokkeel mboole mbokki jullit yépp ci weeru koor wu sell wu tedd wi waaye di leen ndokkeel it ci fàttaliku gu ñuy fàttaliku xew-xew bu rëy ci lislaam mooy xew boo xam ne dañ ko tuddee yow yowmul furqaan ndax keroog la lislaam yëkkati ay loxoom ca kaw keroog la ak kéefar torox am gàcce gu rëy muy xaswatu badr al kubra di xare boo xam ne xare la bu bari ay kiimaan xare bu bari ay jàngat moo tax xare la boo xam ne buñ ci tolloo laaj na julli ñi jëlaat ko ngir jàngataat ko ngir xóotal ca man ca soññ borom pëstéef man ca gën a góorgóorlu loo ku nekk ci fitna néew doole téewut a ànd ak yàlla tomuranke téewul sa wéetal yàlla ñàkk ku la dimbale téewul nga dimbali ko yàlla loolu lépp feeñ na ci biir xare Badar di xare boo xam ne kuñ yàgg a tumurankeel kuñ yàgg a kuñ yàgg a teg ay natt yu metti malgré que mënoon naa fayu ci ñoom yu gudd soxor waaye ba mu leen jàppee am na lu xew ginnaaw ba xare ba wuri wuri ko xare Badar li ci aju dafa bari xam naa liñ ci mën a tënk rek xare la boo xam ne mi ngi amoon ci fukki fan ak juróom-ñaar ci ramadan tolloog atum ñaareel ma ci gàddaay ga bu dee ci weeru tubaab ñi ko tënk ci 13 mars ci atum 624 miladiya mu xewoon nag ci diggante sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi jiite jullit ñi ak jiiru quraysh ak ñi allié ànd ak ñoom mu bokk ci ñi leen jiitu woon keroog mboolem mënees na wax ne sangi màkka ñu ëpp ci ñoom doole gën caa xere ñoo génnoon keroog ndax sabab bi ko waral yàlla bu na muy mbir dana ko wutal ay sabab moo tax ñu naan jaam dafay sabab lu rek waaye yàlla dogal yàlla lu mu bëgg dana ko wutal ay sabab xam nañu ne jullit ñi biñ leen fitnaalee bañ dem Madina lu weesu loolu gàddaay nañ dem xabasa fi daje te tedd ak bari nañ gàddaayee màkka ñëw madina mboolem julli tàmbale yokk yàlla may leen doole ñu bëgg a fayu waaye ndigal la wàccegut waaye keroog ba ndigal la wàccee ci udina lilladina yuqaataluuna ba nga xam ne suñ borom jox na leen ndigal ci ñu fayu ca la ndigal la wàcc ñu génn nag foofu nag suñ boroom daf leen a may occasion ndax fekkoon na keroog bi njëkk waa Quraysh di génn nga xam ne keroog ci biir Quraysh sangi màkk yu bëree bëri ña nga ca biir ka gën a kis Amru Amru bnu Hisham al-Maxzumi di Abu ma nga woon ci biir mbooloo ma xare boobu mu ngi xewoon ci fi ñu tudde Badar Badar nag bu ñu ko waxee mu ngi turu turu barab turu teen bu siiw la bu xew bu nekk ci diggante màkk ak Madinatu Munawwara foofu la xare ba amoon occasion bi leen suñu borom may ñoom jullit ñi dafa fekkoon xam nga arab yi dañ daan génn di jóge Makka di dem Shaam ngir commerce ngir wuti loo xam ne dañ koy soxla ci wàllu dund jamono jooju nag fekkoon na waa Quraysh maanaam ab kuréel ci ñoom jóge woon Makka dem Shaam ngir di def commerce te leen jiitu woon ñoom kuréel boobu mooy Abu Sufyaan ibnu Harb ba ñu ñëwee nag julli yi dégg nañ ne yonent bi sam dégg nañ ne Abu Sufyaan jóge na Saam jëm Makka te dajale na alal ju bari ci alal wa Makka ñu ne loolu occasion la ngir ñu mën leen a kar waaw foofu nag fa Abu Sufyaan jaar ba xam yoon yi muy jaar pour sauver bopp ndax Abu Sufyaan dafa dafa dafa xereñ dafa ñëw dafa yeewu waaye fexe na daal ba yónnee na ca Makka benn waaye ne leen yëgal leen kat Muhammad kar nar na màkkar ak njëg mi bu ngeen moytu seen àll jib dañ ko ñàkk waaja moo dem màkka informé waa màkka ku sàkk ci ñoom doole pour wax Quraysh mën a istijaaba mën a wuyu pour ñu mën a seen njëg mi Abu Sufyaan nag def na ay pexe moom ma waaye ba génnee nag pour war a xeex si ruusul kufr daanaka ñëpp génn Utbatu bnu Rabia Shayba ibn Rabia Amr ibn Hisham ñun ñëpp génn pour dajeeg njëg mi waaye biñ demee ba ci yoon wa ñu dégg ne njëg mi sobe na kon ñu ne moom kon dañoo jóg génnoon pour sauver seenu njëg kon njëg mi sobe na war war ñoo mën a deltuwaat ginnaaw waaye foofa ñu ne kat moom daal ginnaaw ñoom génn nañ ba noppi faaw ñu xeex wan leen seen doole wan leen ñooy kan pour bu ëllëgee ñëpp xam ne borom doole lañ borom kàttan lañ kon ñoom. kenn xalaatut ñu naan dañuy wàññiku faw ñu daje ñoom ñu daal di génn keroog biñ génnee pour war a daje ci xare ba sallallahu alayhi wa sallam ñu àndaloon manes na wax ne jay la ci tënk waaye rek ñetti téeméer fukk ak lu topp ñu ànd ak sayyiduna muhammad alayhi salaatu wa salaam dégg te ñoom sax am na ci ñoo xam ne ñenn ñenn ñi ay gawar ay maanaam am na ci boo xoolee ña ci war lim ba maanaam euh, juróom-ñaar fukk ñoom rek ñoo ci war giléem ñoo ci nekk ay ay gawar waaye si moom ñi ngi ànd ak junni yoo xam ne ñëpp ñoo xam ne dañoo war seen i fas waaye yàlla suñ borom subhaanahu wa taala mooy def ku mu xas àndal loo néew néew doole yàlla moo lay may kàttan moo lay rof doole malgré que day ñoom mat nañu junni yonent bi ñoom àndal doon jay su ñett téeméer fukk ak lu topp nga xam ne dañ daanaka dañ leen a ñettite dañ leen a ñettite waaye suñ borom subhaanahu wa ma nga def nga ñaay la ci loxol jullit ñi ñu toroxal leen keroog ci xare badar rey ña doonoon seeni sang doonoon seeni kilifa ci ci ci ci njiitu wa njiitu wa Quraysh ñu ëpp ci ñoom dañ leen a rey keroog ma nees na wax ne sax xare badar bokk na ci li provoqué xare Uhud ndax dañ fa rey maanaam Hind ci boppam baayam eh, kii ci biir liwaatoo bu njëkk ba ca la Hamsatu bnu Abdul Muttalib rey baayam looloo ko merloo ba tax mu jël ci xare benn waay boo xam ne ko luye muy wax si nga xam ne ginnaaw bi si dugg na ci lislaam waaye xare boobu daal muy xare badar boobu keroog ba ñu dajee yonent bi alayhi salaam ak mboole mi àndal war nañ gañaay lu mat waa Quraysh gañe leen ci kàttanu yàlla suñu borom subhanahu wa taala xare boobu keroog waa Quraysh rey nañ ci ñoom lim bu bari ndax boo xoolee rey nañ ci ñoom wax nañu waa Quraysh maanaam yonent bi alayhi salaam ab lim bi mu àndal malgré que li muy néew néew néew néew ñëw muy ñett téeméer fukk ak ñett rey nañ ci ñoom juróom-ñaar fukk jàpp ci ñoom juróom-ñaar fukk am naa julli ñi nag wax nañu ne liñ rey ci ñoom boo xoolee fukk ak ñeent la juróom benn ci ñoom ñoo bokk ci muhaajiroon ni juróom-ñett ñoo ci bokk ci ansaar yi loole muy xare boo xam ne nii liñ ci mën a jàngate bari na bokk na ci liñ ci jàngate tam bari lool ci kënk mooy dekete ku ànd ak yàlla yàlla wallu ko waaye nag wallu yàlla bala moo ñëw faw ñu xam ne yow mi dëggal nga kooku feeñ na ci biir xare bi nga sallallahu alayhi wa sallam te li mu àndal dañoo dëgër xam ne yàlla lañ àndal ku ànd yàlla nag du jox mukk waaye ngañaay la mujj nañ ñëw ñoom jàng nañ ci biir xare bi it ne maanaam ak mbokk mën naa taxaw de waaye bu diine taxawee <coughs> mbokk féete ca kaw mbokk ma xam bu diine taxawee <coughs> mbokk mbokk andu ne diine <coughs> mooy nekk ca kaw loolu jàng nañ ko ci xare bi ndax ñi nekk ay muhaajiroon ci biir lansaar yi xam nañu ne seeni mbokk la ñuy rey ca waa Quraysh waaye keroog bi nga xamee ne ayat laata ñu ju xaw man rot na mi ngi roy ci rot ci saxaabi yi jalil di amr ibnul jarraax ndax dafa bokk ci xare benn xare ci xare bi muy gis ne benn ci wàllu jamono ci xare bi mu gis ne saa bu kii rek am na kuy ñëw di ko àkk si mu di ko daw saa bu saa bu génne am kuy ñëw di ko àkk si di ko daw mu di ko daw waaye ba mu doxee diggante na xar bi ci la ko du dóor jaasi rey ko ndeke kooku mu rey mooy bàyyam la doon bañ a xeex ak moom bàyyi ki jaar diggante moom moo tax kon gis nga ci la ayib laata ñu xaw man ju ne kat nga xam ne ñu xas gëm yàlla duñ am ak cofeel mukk ci ko xam daa weddi yàlla donte seen baay la donte seen bokk la ba mu kon ndekete yoo ak mbokkoo mën naa am waaye bu diine taxawee nag diine mooy nekk ci kaw mbokk day day day day wàcc suuf na doon xeex ci biir muhaajiroon yi jóge Makka ñan doon rey ci biir waa Quraysh seeni bokk lañ waaye diine moo féete kaw lépp loolu mënees na ko jànge ci xare bi mënees na jànge ci xare bi it ne maanaa yàlla suñu borom subhaanahu wa taala bu lambee mbur mbir wutal ko ay sabab bokk na ci sabab yu ñu mooy xam nañu kat sa alayhi wa sallam euh, keroog bi nga xamee ne ñoom waa Quraysh génn nañ jëm maanaam di xetli ji seenum njëg keroog ba ñu génn doole lañ génn ndax seen alal lañ bañ ñu sàkk sàkkal ko pexe waaye lépp sabab bu suñ borom bëgg la ngir ñooñu dañoo war a daanu dañoo war a dee ci xarab Badar ñu war a génn yëpp dañ war leen rey ci ay kilifa dañu war a génn kon suñ borom pexe suñu borom tëral na sa ngir yoo xam ne tax na ña war a génn te war a dee yëpp génn nañ keroog ñu lay rey leen ci biir moo ci ci ci xare Badar ba moo tax ñu naan ragal yab yàlla la ndax jaam bi fa mu war a dee kenn mënta tee ba du fa dee kon yàlla sunu mi bi dana ko wutal sabab bi ci mujj coo xam manees na koo jànge mooy ki gëm ne manees na jànge ci xare bi ne ki gëm ne bu faatoo dem àjjana du bokk ku gëmul dara moo tax ci lislaam dañuy faral di wax ne benn jullit bu am doole maanaam benn jullit bu ne mën naa xeex ak ñaari yéefar te mën na leen a rey moo tax ñu naan euh, li mu jullit ñi su fekkee ne yi li mu yéefar su boobaa dañuy araamal ku daw ñu ne araamal ku daw maanaam bu ñu waxee li ñu wax mooy julli ñi su fekkee ne yéefar yi julli ñi dañoo nekk fukk yi araam na nit di daw ndax daw ci xare ci kabaa'ir yi la bokk te saa bu julli ñi nekkee fukk yéefar yi nekk ñaar fukk nga daw def nga kabira def nga bàkkaar bu mag ci kabakar yi su fekkee ne julli ñi dem nañ ba mat fukk ak ñaar dañuy tere daw ak nombre yéefar yi ñu toll ndax lan kam min xalilatin xalabat fi'atun kasiira bi idnillah maanaam ku xas am doole yàlla ku mu àndal te nga gëm ne sa bakkan bu ko def ajal na nga jëm da ngay am ñaari doole dooley physique ji ak dooley gëm ne boo faatoo ajal na nga jëm te loolu lépp nag feeñ na ci biir xare ba badar xam naa loolu lañu doon tënk ci jotaay bi buy jotaay boo xam ne bu mat yaatal la bu mat a détail la ca nay xare ba demee ñépp yàlla na yàlla may nu euh, jotaay buñ ko mën a amee la insha allahu taala ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa Abdul Ahad ci taxaw boobu yi nga xam ne def nga ko ci xare bu mag boobu yi di xasootu badrinil kubra di aswa boo xam ne ni nga ko waxe mooy yowmul furqaan wala al yowmul faariqu bayna al xaqi wal baatili mooy bis bi nga xamee ne tey mooy awaamul islaam tey bu nee ba taxaw ba dëgër ci sabab boobu yi la ko sunu borom jaarale tabaaraka wa mooy ni nga ko nettalee rek yonent bi sallallahu alayhi sax naam ba muy génn xare tax ko woon a jug ba muy génn xare tax ko woon a jug dami njëgg ma nga xamee ne eh, njëgg mu riis la woon mu réy la woon moo xam ne Abu Sufyaan jël woon na ko saam war koo jëmee Makkatal Mukarram moo ko taxoon a jug eh, njëgg mu tolloon ci wax nañ ne tolloon nañ ci junniy junniy gëléem wala junniy gëléem yoo xam ne dañ koo sëf ci alal ju bëree bëri yoo xam ne bu ñu ko doon xayma war naa mat juróom fukki junni diinaar Euh, juróom fukki junni dinaar nekkoon lu lu lu lu lu lu riis ci jamono jooja suñ jamono jii tey bu doon mooma ay millions yi millions yi millions yi lay doon yu bëree bëri loolu moo nekkoon objectif yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono ji nga xam ne génn waaye Abu Sufyaan ak ñaw ga ni nga ko waxee ba mu yëgee loolu daa daal di teggi daa daal di teggi Badar daal di jël kenn yebal ko ca waa Màkka ne ko demal ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ni génn nañ ngir kar ñu ba mu demee ba yàlla dogal mu xam ne mucc na nag daa daal di daa daal di yónneewaat ne leen nee leen mucc nañ mën nañoo delluwaat seeni i kër waaye li nga wax rek suñu borom ba nga def dara da koy jaar ci sabab ñoom it ñu daal di féttéerlu ne faaw ñoom génn nañ ba pare waaj nañ ba pare dañuy dañuy dem te wax nañ ne matoon nañ junni ak ñett téeméer fukk ñett junni ñett téeméer fukk ak ñett waaye ba Abu Sufyaan waxee loolu ñett téeméer ak fukk ak ñett dañoo dañoo wóor ba dugg ne dañuy dañuy delluwaat seen i seen i kër mu des junni yooyu nag bokkoon na ci ka leen jiite woon muy Abu Abu Lahabin lu loolu la ko Sëriñ Tuubaa di ko waxee ne lakinnahu jarrahu nisfu ismihi li radan eh, moom Abu Jahlin eh, ndax eh, tur woowu mu woote muy Abu Jahlin ku nekk xam ne li muy fii ci wax mooy bàyyi réer bàyyi réer wala borom réer ga loolu moo ko xëcc mu féeteelu ne faaw day day day dem xeexi te ba foofu la faatoo ku ñu wax Muaas ak Muawas ñoom ñaar ñoo ko faat ku nekk seeni ñaar jees jël dara ndoo fekk ñoom ñaar bi ñuy taxawee ñu ngi doon wax Hamza ne ko waññu ko mooy Abu Jahl ndax dégg nañ ne day ŋàññu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba ndee ba di xeex ba tàmbali Hamza wan leen ne ñaar ba sa jël si rek daal di dóor mu daal ci kawam daal daw ñëw ci yontu sallallahu alayhi wa sallam ku nekk na maa ko rey ku nekk na maa ko rey yontu nee na ma xool seen i jël si ñu xool mu xool ko ñoom ñëpp taq dara mu ne yéen ñaar ñëpp ko rey ba wax nañ ne ku ñu wax Muawus moom mais ne ci xare boobu la mujj des Muhaas moom dundaat na ca euh, gannaaw ba waaye moom ca xare boobu la la faatoo gannaaw bañ ko ca gaañee lépp rek eh, ngir gëm ndax ñett téeméer fukk ak ñett jàmmaarloog junni loolu ak gëm gu dëgër rek moo ko mën a waral waaye nag loolu daa am ku taxaw seen kanam ku ko mën a waral eh, ndax yonent bi mu ngi ànd ak ñoom di xeex ba pare naan leen eh, siiru wa absuru inna allaha taala qad waadani ihda taifatayni wallahi laka anni ansuru al ana ila masariha xaw mi daa mel ni maa ngi xool nërmiilukaayu gaañi fi ñu war a daanu tey maa ngi mel ni di ko jàkkaarlool bañ ne suba la xeex bis ni ko tey daa taxaw naan diw de tey fii lay daanoo diw fii lay daanoo diw fii lay daanoo te dama ko waxee woon bañ xëyee noonu noonu noonu la demee te ci biir xarab it mi ngi ba baamu aaya boobu noonu say sanul jam xawa yu wal noonu dubur mi ngi koy baamu di ko baamu ba ni nga xamee ne noonu la jullit ñi rayee ci yéefar ñi e, ni ngi ko waxee juróom-ñaar fukk e, ñu rey ci jullit ñi fukk ak ñeent ñoom it seeni tur boo demee ca barab ba ña nga ma nga ñu def fa benn liste ca màkkatal mukarrama e, def ko fa wax dëgg yàlla taaral ko lool loolu nag jullit ñi dañ cee war a jàng baax ni ko ustaas waxe waaye liñ ci gën a war a jàngee bokk na ca wóolu sa borom te xam ne yàlla lépp loo xam ne digg na la ko rek da koy da ko dana ko dana ko matale euh, inna allaha la yuxliful miaad yàlla du wuute ab dawal mu moo tax yunte salaa sallam mu gëmoon loolu tax na sax ba muy ñaan ba ñu suba la ba jullit ñi ba ñu ñaan euh, taxaw di ñaan di ñaan di ñaan di ñaan ba kaala gi tegoon ci doqa wadd Seydina Abubakar dana ko daa dikk tegaat ko kaala gi ne ko te nga noppalu lii la sa borom dig dana la ko def dana la ko dana la ko dana la ko dana la ko defal dana la ko defal euh, kon loolu it lu mat a bàyyi xel tey ak ngëm-ngëm it daa am solo pas-pas loolu suñu jamono ji war nañ cee ndax doom jàkkaarloo na ci ak bàyyi doom jàkkaarloo na ci ak bàyyi mag jàkkaarloo ci ak rak euh, loolu it lu mat a bàyyi ndax pas-pasu nit ki boo koy boo bu bu xasee bu xasee nekk ci yow rek du amati sentiment ci leneen lu mu mën a doon boo xasee laal pas-pas rek da ngay mel na ni xasootu badar xas wala boo xam ne bu bu bu mat a yaatal la yëmu ci benn jataay wala ci ay minutes yu néew euh, lu mat a waxtaane la ndax tàmbali maa ba ba fin day jël waxtu yu bëri ba pare nga wëgg ñëwaat ci durée suñu waxi bari euh, euh, day jël ab temps bu bëree bëri bëri seblaan ñu ngi leen ndokkeel baax baax di la sant wax di yàlla li nga xamee ne indi nga ko ci xasoo bi am na solo lool ñoo ngi lay ñaanal suñu borom defal la ci tawfeex bu ko defee suñu fàllu mel na ni am na laaj yoo xam ne rot na fi nga jot li ko oustaz mu tontu ko ñu door di yëkkati jataay bi incha allahu taala waaw jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñu doon bàyyi xel seen waxtaan wi fii ci maktabu Cheikhul Khadim daaray kaamil di sant bu baax sëñ Abdou Lahad Niang ci waxtaanu am solo yu mu ñu indiloon tey waxtaanu mi ñu tey du ko sant bu baax ci leeral yi di ñëw rek ci yi nga xam ne laaj yi mbokk mi lay laaj ndax Seydina Jibril daa ñëw ci xare bi ak ndax moom noonu nga ñëwoon si malaaka yi wala amoon na ñu ko ñëw kémtalaay ni ñu jot a jàng ci siira day mooy jibril bokkoon na ci wàcc xay ba euh, moom moom sëñ bi tudd na ko sax day mel ne ci biir ci biir fii ximoo ji mu daanaka sama fii ximoo daf ca tudd sax nag euh, dajaa tudd mbooleem ci tudd ci Seydina Seydina Jibril safla si foofu sax euh, Seydina Jibril tudd na ko ci ba tudd ci sax saxaabañu mag yi kon Jibril bokk na ci ñi nga xam ne wàccoon nañ ci xare boo kemtulaay li nga xam ne de moom fa la ci suñu xam toll waaw kii day laaj turu badar lan moo ko indi waaw badar xam naa ne pour nekk ci diggante Makka ak Madina loolu moom day mel loolu du naa ko ci leer bi léegi xam man boo xam ne dafa nekk ci diggante Makka ak Madina waaw jërëjëf ci ndax xoolal nit ñi dañoo wóor wala déet. waaw li ñu li ñu mooy wóor bokkoon na ci xare bi waaye wóor wóorul woon maanaam ñoom sax bi wóorul woon ci xare bi loolu dañ leen gis naa benn boo xam ne ñu koy mooy sax bi xare bi wóorul woon. kon mbokk yi jërë ngeen jëf ñu doon bàyyi xel seen waxtaan fii ci xabatu Cheikh ko baaxoo amale ci waxtu yu ni dundal koor yéen sant bu baax yooyu ñi xam ne ñu doon bàyyi waxtaan bi al ci télé bi di Touba Vision di leen sant ak Bichri TV ak bismillah biir la boobu moom xam naa ne daa ci def taw mënu maa dugg ci ni ci loolu nag ci da jëriñu ñu muri si mbir yi ñëwoon na waaye nag comme ba moom comme laaj moo gàtt la moom du ma ci mën lu ma ko defaat maanaam la jékki-jékki rek xam ne dafa ñëw nii ci xel ma rek ma force ko loolu du ma ko def moo tax damay sa bu ko defee dama koy restituer saa si sëñ bi nee nañu la dégg nga jërëjëf ci honnêteté bi loolu moom borom xam-xam naa ko naa ko jot ndekki dégg incha allah jërëjëf incha allah jërëjëf kon bu ko defee rek incha allah yéen ñi nga xam ne yéen doon bàyyi xel waxtaan fii ci ak Cheikhoul Khadim daaray Kaamil ñu ko baaxoo amale fii ci top ñu leen ko daanaka ci kaw di Touba Vision ñu leen bu baax yéen nga xam ne ñu doon topp waxtaan fii ci fii ci YouTube bi di sant la ci Bichri TV ñu ko doon jàll en direct ci programme suuf rek incha allah rabbi ñu ko ànd ak docteur Khadim Sylla ci thème bu am solo di oxal bu am solo bu ko defee ngeen man koo bàyyi xel ci télé bi di Touba Vision muy borom xam-xam mag du ko ñaanal suñu borom defal ko tawfeex ak suwaat jàmm incha allah rabbi ci thème bii di wokkal bu kaaw ñu koy ànd ak docteur Khadim Sylla jërë ngeen jëf ba subaak